suñu boroom nee na ëllëg ñi xarito woon ñëpp ay noon lañu ki nga xaritoonul ci àdduna ay noon ngeen di nekk nee na ñenn rek ñoo nekkoon xaritoo ànd te du ñu nekk ay noon ëllëg mooy ñi nga xam ne dañoo àndoon te yàlla tax nga xam ne ñoom yàlla moo leen boole woon al aqillaau yawma idin baaduhum li baadin adu illa al muttaqin ki nga xam ne danga koo defoon kilifa topp ko te yàlla taxut nga xam ne moom daf lay sànq jëmale ci bànneexu àdduna waaye jëmale wu la ci yàlla suñu borom ëllëg bisa ngi ñëw boo xam ne ña toppoon dana nekk sawara yàlla di leen walbati nday joor ak càmmooñ seen xar kanam yi ñu di ko wëlbati ci sawara bu boobaa lan la ñuy wax aka neexoon ñu topp yàlla ak yonent bi aka neexoon ñi ñu toppoon def leen ay kilifa te wanuñu ñu yàlla ñu wan leen ginnaaw yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar yaquluuna ya laytana ataana allaha wa ataana rasul wa qaalu rabbana inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluuna sabila mooy yàlla yow boo ñu defee defalee mbugal benn yoon ñoom na nga leen ko defal ñaari yoon waaye na nga leen rëbb rëbb moo xam ne rëbb mu am doole lay doon kon kilifa ki ngay àndal na nga ànd ak moom ci yàlla saa yoo xam ne da jël nit def ko sa kilifa ànd moom te wommatu la ci xam-xam wommatu la ci jaamu yàlla kooku na ko fa bàyyi xam ne daf lay nax Serigne Touba nee na woon ku sàkkoo àgg ci yàlla na nga mooy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ndaka mooy na nga ànd ak koo xam ne tax koo xam ne ci topp yàlla lay nekk. du mooy yàlla ci li feeñ du mooy yàlla ci li nëbbu daf lay wommat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla man talaba alwusula lil jalili falyactasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian la yamin fi dahirin wa batinin an ilsabil yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada ndax nit ki nga toppoon ci àdduna ko ci diine te tegtalu la yàlla ëllëg moom ci boppam bu gisee mbugal ma day dañ ci yow am na ñoo xam ne topp nañ ay kilifa yoo xam ne tegtaluñ leen yàlla seen bopp lañ leen di tegtal ak àdduna ëllëg kilifa yooyu dañuy dañ ci ñoom is tabarra alladina tabaau min alladina tubiu wa raaw aladab wa qaalu rabbana law anna lana karratan fa natabarraa minhum kama tabarrau minna boo boobaa yow mi toppe woon lan ngay wax aka neexoon ma delluwaat àdduna ni ngeen dañee ki ñun yéen kilifa yi ñun it ñu dañee woon ci yéen noonu suñ borom nee na bu ëllëgee loola rëccu weesu kon li ma bëgg wax rek mooy am at génn na am at duggaat kon ki ngay àndal ci yàlla suñu borom kooku war nga koo xool war nga koo tànn beneen bi mooy nit ki war naa fàttaliku comme que am at duggaat na te at mii duggaat kenn ci ñun xamoo ndax at mi dana jeex wala du jeex ndax am at moom bu duggee il faut ko dana am ñu faatu dana am ñu wéradi yow nag leeru la ndax yow ñiy fekkee meneen at mi ci nga bokk wala déet ndax at mi nii mu tàmbalee am na ñoo xam ne ci la leen yàlla di moom am na ñoo xam ne ci digg at ma la am na xam ne bu at mi di jeex kon yow li nga war a def mooy comme man xawma ci at mais ndax dinaa ko fekkeem déet kon li ma war a def mooy naa fàttaliku dee ndax nit ki bu dee fàttaliku dee bis bi nga xam ne ci lan koy sàng suul ko jébbal ko yàlla suñu boroom loo àndoon ak àndoon ak nit loo xaritoo woon xaritoo ak moom amul kenn ku naan diw sàngam taxawal ma fekk ko ca bàmmee la bal sax fan lay dencee fan lay suulee fa la nit ñi di yàkkamtee wëlbatiku delluwaat seen i kër lekki war seen i ceeb bu jëm nekkaat ci àdduna léeg-léeg sax yow fañ lay sarxale wala fañ lay robee nit ña nga àndal ci seen bopp sax àdduna la ñuy waxtaani far benn ndax nit ci léeg-léeg bu faatoo bu ñu ko yóbbu sax oto bi ñu ko yóbboo nit ña fa leen ni tàmbalee seen waxtaanu adduna moom fàttee nañ ko moom tege nañ ko nële yow nag comme que yow nit ñi bis boo leen wanee ginnaaw fàtte nañ la ñoom ñi ngi ci leneen yow kon sa dund teem koo jël jox ko yàlla teem koo jël jox ko yàlla mi nga xam ne boo nekkee ci àdduna ak buñ la dencee ci sa bàmmeel yépp yàlla ngay gis te nit ki kenn ku ne xam na ne bu génnee àdduna na muy delloo ci yàlla mooy na mu ñëwee woon ci àdduna ndax kenn ku nekk bi ngay ñëw ci àdduna indaale woo dara yàlla nag nee na bu ngeen di dellu si waat noonu ngeen di dellu si waat wa laqad naa furada kama xalaqnakum awwala marra awwala marra wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum kër yu rafet yi nga amoon oto yi nga amoon soxna yéeg doom yéeg lépp danga koy bàyyi ci àdduna kon nit ki war naa teewlu yàlla suñu borom fàttaliku bis boobu te bis bu jara fàttaliku la mbokk yi ndax jamono bu nekk nga gis fii nit léegi nga ñu woo la téléphone léegi ne la diw sàngam faatu ndax diw sàngam moomu di faatu di dem yow da nga koo gën ndax dangaa def loo xam ne moo tax nga des fi yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom nee na ko wa ma jaalna li basharin min qablika al du amul kenn ku fi sax te yow ci sa bopp da ngay faatu ñoom dañuy faatu innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum comme que yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi joge sëriñ bu mag bi di sëriñ Tuubaa jóge fi nit ñu baax ñépp jóge fi borom alal àdduna yépp jóge fi kon yaakaar naa képp ku des ci àdduna yi loolu war naa nekk ab waar ci yow sa dund nga jox ko yàlla suñu bopp kon mbokk yi loolu nañu ko bàyyi xel xam ne bis sa ngi ñëw boo xam ne nit ki dana taxaw ak yàlla suñu boroom ba mu jàpp ne moom rekk la yàlla sa bind wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda bu boobaa yàlla dana la laaj ñeenti laaj mooy sa xam-xam bi na lan nga ci jariñoo woon lan nga ci jëfe woon alal ji nga amoon foo ko jëlee ak foo ko dugal ndaka noonu sax waxambaane ci lan nga ko def waaye sax dund ci lan nga ko passé ñeenti laaj yi kenn ku ci nekk yonent bi sallallahu alayhi nee na doo jéggi benn jéego lu dul yàlla suñu boroom dana taxaw ak yow laaj bu ko defee kon nit ki na sàmm ay cëram ay cëram nag mooy ay bëtam ay noppam ay loxoom biiram tànkam pëyam làmmiñam lenn lu ci nekk rek na cay def ak topp yàlla te di ci wattaniku ak mooy yàlla saa yu juumee ba def ci ak mooy yàlla loola na ko jéggulu na ko tuub na ko jéggulu na ko tuub te bañ caa delluwaat ndax dañu bàyyi xel ne nit ki ëllëg cër yi nga xam ne mooy ay cëram nga xam ne moom la ko yàlla booleel say loxo say tànk sa làmmiñ say pëy dañuy taxaw di la seede am na foo xam ne sax làmmiñ wa dañ koy tëj al yawma naxtimu ala afwahihim wa ay aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun yàlla nee na bi sa ngi ñëw boo xam ne am na foo xam ne seen làmmiñ dañ koy tëj seeni loxo ak seeni tànk ñoom ñoo leen di seede ca la ngeen doon def tànk yi danaan bi sàngam maa demoon barab sàngam def naa fa nangam loxo bi ne bi sangam maa jël nàngam làmmiñ bi ne bi sangam wax naa nàngam biir bi ne bi sàngam dugal nga ci man loo xamante ne si alal ju araam la comme que nit ki ay këram dañu koy seede kon yow amoo génn waaye amoo aw lay ndax kër yi nga amoon benn bu ci nekk dana la seede la nga mos a def beneen aayaa ni boo xam ne suñ boroom mi ngi ñuy wax ne di saxal ne seeni cër dañ leen di seede ëllëg bis pénc mooy fi muy waxee ne inna alladina yarmuuna almuxsanaat algaafilaat almuminaat luinu fi dunya wal axira wa lahum adabun adim yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yacmaluun yowma idin yuwaffihim allahu diinahum alxaq wa yaclamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin bis boobu lépp loo jëfoon yàlla dana la ko fay lépp loo jëfoon ñaar dërëm yi nga xam ne da nga koo yoreeloon nit daan ne ko diw sàngam aal foofu ñaar maa ngi ñëw joxaat la ko léegi te ñaar dërëm woowu joxoo ko ko ëllëg suñu boroom dana la ko xisaab te ëllëg say cër danañ seede lool. beneen aayaa ngi boo xam ne day tegtale ne nit ki ay cëram dañu koy seede ëllëg suñu borom nee na bis ngi ñëw boo xam ne noonu yàlla yi. dañ leen di dajale jiital leen màng leen jëme leen sawara bu ñu demee ba àgg sawara bu boobaa nee na seen ay nopp ak seen ay bët ñoo leen di seere bu boobaa lan la ñuy wax mooy yéen suñuy nopp ak su ñuy bët ak suñuy der lan moo tax ngeen ñuy seede la ñu defoon ci àdduna ngeen di ko wax te ngeen a noppi suturaal ñu lan la cër yi di tontu dañu naan yàlla mi nga xam ne lépp lu mu wax loo mu wax yàlla moom moo ñu loo te it bi ngeen di def loolu ci adduna dangeen ngeen a jàppoon ne seen ay cër bu ñu leen seede tey nag yéen ngi nii sawara mbugal maa ngi nii bu boobaa suñu borom nee na bu ñu sàkkoo delluwaat àdduna ngir jëf lu baax yàlla nee na du ma leen ko may ndax bu boobaa rëccu passé na wa yawma yuxsharu aadaullahi ila annaar fa hum yuzaun xata ida ma jaauha shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanu yacmaluun wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla cheyin wa huwa xalaqakum awala marra ba ni aayar yi jeex léegi nag cër yooyu di seede nit bokk na ci bi ci gën a doy mooy làmmiñ mbokk yi làmmiñ muy wax kàddu yi nit ki di génne ci làmmiñam mën na koo musal waaye mën na koo alak am na ñoo xam ne seen dunduk àdduna jëratul dara ci ñoom naqari na te la ko waral mooy ay kaddu yu doomu aadama génne teg ko ci seen kaw am na ñoo xam ne ñu ngi dox ci kaw suuf ñoom seen dund yàqu na waxuma la seen seen ñoom ci seen bopp waaye seenu njaboot sax wala lu askanoo ci ñoom seenu dund sax daanaka day mel ni ki sax amatul solo ci àdduna te la ko waral mooy doomu aadama moo yëkkati ay kàddu teg ko ca kaw kooku kaddu yooyu nga teg ci kaw kooku nga xam ne yàq nga ak dundam ci kaw suufu ndax dangaa jàpp ne yow da ngay faatu ñu denc la ci bàmmeel loolu jeex tàkk déedéet ëllëg da nga ko layoog suñu borom kon làmmiñ lu doy waar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ku gëm yàlla gëm ne da nga taxaw ak yàlla gëm bis penc yi gëm ne siraat am na sawara am na aljana am na nee na kooku nay wax lu baax te noppi maanaam wax lu baax sa làmmiñ wi li ñu ciy génne na doon lu baax nee na boo ci munta wax lu baax noppil wala boo ci dee wax lu baax lu baax la fu mu yem nga yem foofu doon na wax it moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xam ne noppi nga da nga mucc nee na ku noppi ci lu amul njariñ nee na kooku dana am ak mucc beneen bi ci teg yonent bi sallallahu alayhi doon na wax ne ci liy wane làmmiñ doy bu mu doy waar kaddu yi nit ki di génne ci làmmiñam mooy nee na kan ci yéen may garantil ne dana sàmm làmmiñam ak pëyam ma garantil ko aljana kon nit ki làmmiñam bu ko sàmmee ba du ci wax lu dul noonu bu boobaa yonent bi salaay salaam nee na dama koy garantir aljana dama koy garantir aljana beneen xadis a ngi nii boo xam ne bu doy waar la bu daw yaram ku ñuy wax Muaz ibni Jabal benn bis dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi saa yu ñu daan nekk ak yonent bi ñoom dañoo xeroon ci lu baax ba dañuy bëgg ay kàddu yu jóge ci yonent bi salaay salaam ñëw ci ñoom mu daan ne ko yow yonent bi xanaa dooma wax loo xam ne. dafa may jegeel aljana soril ma sawara yonent bi ne ko day yow laaj nga mbir moo xam ne mbir mu rëy rëy la lu lay so lu lay jegeel aljana soril la sawara daan ne ko li ma lay dénk ci loolu mooy jaamul yàlla te bul ko bokkaaleeg dara jaamu yàlla te bul ko bokkaaleeg dara mooy lan mooy cërub yàlla bul ko jël jox ko doomu aadama léeg-léeg nit ki fonk doomu aadama bala la mu war a jox yàlla mu jox ko diw sàngam te loolu bari na ci nit ñi loolu nañu yàlla jégal waaye léeg mu am kàddu yoo xamante ne si wuute wut ak yi bokkaale yàlla suñu borom ndax loolu bu nekkul bokkaale yàlla xaw ma lan mooy bokkaale yàlla fonk nit ki ba jël ko jox ko cër bu yàlla suñu borom mu ne ko jaamul yàlla te bul ko bokkaaleeg dara daan ne ko na ngay taxawal julli juróom na ngay joxe azaka boo ko mënee na nga woor weeru ko daan ne ko xanaa duma la tegtal yi nga xam ne ay yiw la daan ne ko del sarxe ndax dafay far ay ñaawteef ay bàkkaar daan ne ko dellu woor koor ak ngàtt nga ndax loola dafay dox sa digganteeg sawar daal di dem ba mujj yàgg nag am na lu bari lu dox ci diggante bi waaye dafa dem ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko léegi daal di jàpp aw ne ko téer sa làmmiñ wi Muaz daan ne ko yonent bi ndax ñun lépp lu ñu wax ci sunu làmmiñ dañ ñu koy jàppe yonent bi ne ko yërmaane ñeel na la daan ne ko ëllëg aw nit a ngi nii woo xam ne wala nit a ngi nii koo xam ne dana dem ba sawara mu këpp fa xar kanamam nit ki mooy waaxu ba sawara moom mu tàppal boppam sawara yonent bi ne ko te la ko ko yóbbee mooy lam daan wax ci làmmiñam moo ko yóbbee maanaam li mu doon génne ci làmmiñam ci lu dul noonu nee na loolu moom moo ko jël ba ba mu yóbbu boppam sawara moom nga xam ne moom mooy dem ba sawara mu dugal fa boppam yàlla nañ ci yàlla musal kon làmmiñ lu doy waar loo xamante ne si nit ki war na ci bàyyi xel bu baax a baax bu ngeen xoolee nitu yàlla yi nit ñu baax ñi daa bokkoon ci seen ponk yi bu fekkoon seen mbir ab tabax la wala ab néeg la nga xam ne dañu naan ñeenti keno moo ko téye ñu ne keno ba ca njëkk mooy noppi ci lu amul njariñ arkaanu bayti jamii al qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu wa uzlatun an suyuqin bil nit ki war nay fexe ba làmmiñam na ciy wax lu baax wa qulu linnaasi xusna na ciy wax wax ju jub wa qulu qawlan sadida kon loolu incha allah mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a indi bu ko defee daal li ñuy wax rek mooy am at génn na am at duggaat kenn ku nekk ci ñun sa itte ci yàlla suñu borom na kawe na nga farlu bu baax a baax والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الذي اختار لنا شهورا وأياما لا يحصى ولا يعد فضلها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضيع أجرها ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صنف الموجودات وبدرها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتدوم فلا يبلغ كنهها أما بعد يا أيها الناس اغتنموا أوقاتا يقصر عن سعة عن سعة فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عنها فالمحروم من كان عنها معرضا فإن شهركم هذا هو له فضل عظيم عند الله وشان وهو أفضل الشهور كلها لصوم بعد بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فلهذا الشهر مزية ليست لغيرها من الشهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم المشهور فإنه مشهور بالخيرات والفضائل مشهور عند الأوائل وعند الأواخر والأوائل وهو حقيق بأن يعظم ويسام ويحسن فيه إلى المساكين والأيتام ويتصدق فيه بما تيسر من لباس وطعام الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وحبانا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله تذكروا بآيات الله واتعظوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وعلى سنته حافظوا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم صيام يوم فضله فضله الله على غيره وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله الله على غيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وقيل أراد أن يصوم العاشر والتاسع ولهذا استحب استحب علماؤنا أن يصام أن يصام اليومان معا وقال أيضا من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه جميع سنته وقال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أما النفقة يوم عاشوراء والتوسعة فيه فمأثورة بالاتفاق نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين